Merci de nous avoir reçus, chers amis internautes de www.senclic.com. E, Aujourd'hui, j'ai un grand plaisir de vous présenter un ami, de vous présenter un frère, une fierté de la musique sénégalaise, muy Jacques Takaifa. Jacques Takaifa, Jacques et la famille Keita euh, mu nekk artiste boo xam ne donc seen histoire musique mu ngi tàmbali dans les années 90 91 92 foofu ca Kaolack ju fa ñëw entre 2006 ñu commencé leen. Euh, ràññee ci millier bi 2006 2010 def nañ fi album muy gas gis def ay tournée internationale joué un peu partout à travers le monde joué aussi tamit national joué dans tous les bons coins muy Ndakaaru ak ci région yi ak yooyu tey ñu ñëw seet si leen fas yéene waxtaan ak ñoom gëj nañ leen dégg trop xamatuñ ci lu ñu nekk mais tey dinañ xam lan la ci lan la Jacques nekkoon ci lan la groupe bi nekkoon ci lu ñu doon def pour castan baay bi mbokk yi topp leen moom. yes chers amis internautes comme ni leen ko waxee woon gis nga ñëw nañu euh, présenté nañ leen ko ci suuf yegg si nañ ñëw nañ fii fi fi nga xam ne mooy makkaanam gis ngeen livre yi décor yi ak yooyu dessin eh bro ziar naa la gars yi naka waar. merci waa Sen Clic d'être venu chez moi. interview bi quoi. on est ensemble incha allah. merci mais ñu lay remercier de nous avoir encore une fois. Mm, mm, mm. yow di fëttaliwaat suñu coloré ak yow. yow mu ngi lay yàgg quoi. merci beaucoup sinon nice. depuis Kaolack depuis Kaolack <laughs> yow bienvenue. <laughs> ok sinon. ça va. ok ziar nañu leen yéen ñëpp internautes yi chers amis internautes comme ni leen ko waxee ci entre bi ñu ngi ak Jacques Takaifa Jacques et la famille Keita ñoom seen histoire musique mu ngi dooree en 1990 91 92 su ma juumul entre 90 ba 2006 la ñuy commencé leen ràññee 2006 2010 def nañ fi ay sorties def fi album gas gis génn tournée joué un peu partout à travers le monde tey Jacques a ngi nii Jacques maa ngi lay saluer di la nuyu encore une fois euh, di la remercier ci sa disponibilité parce que yombul donc seet si naa la xam naa ne ku oyof nga et puis ma la fekkee daal ni ma la daan gisee donc bi ma gisee Jacques tey beneen Jacques laa gis quoi merci beaucoup. non mais d'abord man maa ngi remercier ci seen ci ngeen ñëw seet si ma donc leen euh, dalal leen ak jàmm waaw fii seen kër la euh, waaw man nag euh, dama dama dama nekk ci benn projet boo xamante ne c'est mon projet solo donc def benn clip bu bees ak Dame Sène donc ci promotion projet boobu laa nekk nii mais pour te parler de Takeifa fu mu commencé ba tey fi mu toll nii yaakaar naa histoire la boo xam ne dañ ko commencé te dañ fi dañ fi dañ ko commencé woon dañ fi àgg en fait c' ko créé en en 2000 mais avant boobu man ay 92 13 yooyu commencé naa def sama sama sama commencé naa def euh, sama projet muy euh, hip hop xam nga denk fii fee ci di jëm imité Michael Jackson créé ay groupe d' arabe comme Crazy Boys Muslim ñu boobu ñu ngi woon Kaolack créé aussi beneen groupe bu ma intégré woon bu nekkoon Kolda waa Mafia tu vois après nag ñëw Dakar en 2000 mille 2002 laa ñëw dakaar donc depuis dakaar nag ñun ñu ngi installer fii di di di vraiment di yëngal quoi entre temps génne nañu ñaari album muy Diaspora ak euh, album Gas Gis bi génn daaw. ok euh, Isaac dañu gis ne aussi tamit da ngeen amoon groupe bi dafa amoon benn benn benn sens mooy tukki li groupe yëpp manqué la li gars yi soxla mooy def album génn tourner voyager un peu partout am sens partagé yow yàlla dimbale na nga def loolu tey groupe bi boo ne Jacques Takay Faye yow la ñu gën a ràññee yaa nekk devant yaay woy yaay rap et histoire bi yëpp groupe bi ci yow la jógee parce que suñu déglee bu ci mel ni mam yi nga xam ne moom nee na man su ma tollee fii Jacques moo tax parce que moom moo nekkoon suma fan et puis waaw nga regroupé gars bi teg groupe ak yooyu boobu la set lal moo nekkoon secret bi cest di dire problème mu management la wala financement bi la. waaw man di ma di ma ne plus côté management la parce que dañoo amoon chance euh, bu ñu commencé suñu suñu projet euh, amoon ay ay nasaraan yoo xamante ne dañu ñëw teel a découvrir fii Sénégal après ñooñu nag ñoom ñoo ñu doon manager ci côté international donc te ba tey sax maa ngi liggéey ñoom ci sama ci sama projet bi quoi. donc euh, donc yaakaar naa côté management ak chance ak aussi am am benn musique bi nga xam te ni day mën a day mën a génn frontières yi parce que aussi du fekkoon da ngay def benn musique boo xam te ne c'est c'est très local ñun ñun dans yaakaar naa yenn saa yi du du du du du mën di tukki tukki sori quoi waaw. te yow lañu fi fekk Ansrak yi. waaw ñëpp a ngi fi ah tout le monde bien ñëpp a ngi fi Fallou moom rek moo fi nekkul muy rappeur bi non effectivement mi ngi mi ngi mi ngi Paris day jàng yi. donc dem na depuis depuis depuis maintenant presque un an donc benn université la nekk di jàng ci beat making et tout ça donc euh, système moom moom mi ngi fii moom commencé na projet projet projet projet moom projet solo Cheikh aussi mi ngi fii c'est l'artiste peintre c'est le guitariste Ibra aussi moom mi ngi fii c'est le man commencé na sama benn projet solo mais en même temps aussi maa ngi kon liggéey toujours ak ak ak sama frère yi ah. stand bi lan moo ko parce que ci bëri ñu ngi naan. takkay fa Jacques gisatuñ leen est-ce que nekkuñ extérieur voyager te Jacques a ngi fii làqatu fii nee na fii mu ngi fii di job jobu boppam personnel boo xam ne ni projet solo la euh, lan moral stand bi Jacques gars yi déggatuñ leen te da am ay fans yu particulier yoo xam ne dañ leen di bëgg. en dañoo dañoo dañoo génne benn album Gas Gis donc album boobu buñ ñu ko génnee dañoo def euh, quand même bu yàgg bitim réew donc bu ñëwee. ci la ci la ci la système bi aussi commencé projet projet solo donc doo xool loolu yëpp ça nous a benn 6 mois même 7 mois donc 7 mois yooyu nag man aussi il fallait que ma commencé sama projet bi mais aussi jël temps liggéey ko parce que projet projet album wala projet single lu mu mënti doon. lu jëm lu concerne musique vraiment day laaj doo ci dugg nga jël temps réfléchir pour am ay cible am ay objectif xam aussi qu'est-ce que tu veux lu wute ak li nga doon def wala lu wuute ak déjà lu nekk ci marché bi donc dafa am liggéey boo xam ne artiste bi la mais aussi liggéey boo xam ne staff bi la donc di ko liggéey boobu yëpp doo xoolee day jël temps mën a def mën a def ay at mais yàlla def na ba teel naa gis yoon bi man lu ma concerné donc loolu moo tax euh, silence bi xawoon na am tuuti. Euh, yaa ngi doog a ñëw yaa ngi tout récemment yaa ngi lancé benn single bu bees. boo xam ne nii donc yaa ngi ko def ak Dame Sène xam nga Dame Sène ku ko wax wax donc ambianceur la et puis danseur la ak yooyu pourquoi nga choisir Dame Sène. waaw Dame Sène ndax sama jumeau la déjà <laughs> dañuy yàgg wax ne maag moom dañoo nuroo et effectivement. donc plusieurs fois aussi ñu daje si ay milieu ci ay concert xam donc mu nekk mu nekk Baye Fall tigi quoi muy nit ku baax wax dëgg yàlla. donc ma sentir trop li muy def taxoon euh, taxoon single bi bu ma bu ma paree bi bi ma njëkk xalaat vraiment moom la quoi te aussi euh, rëccu ma ko ndax euh, lim ci teg macha allah waaw mi ngi place am quoi. daam seen ambianceur la fu mu dem moom da koy rajax quoi <laughs> ok Jacques bu ñu lay classé artistiquement dañ naan world music lay def folk jazz pop ak yu demee noonu soo choisiree tey daam seen ci sa single bi ngeen xam ne génnee ngeen ko. Euh, mu nekk singam boo xamante ne ni moom mooy accompagner sa projet bi nga xamante ne ni yaa ngi ko teg muy album bi. ok mën nañ ci xaar benn mbalax benn style bu bees xam nga carrément sénégalaise. waaw tey livre naa pour def lu ma neex ah du neexee moo def benn morceau mbalax bu saf taas aussi ah. waaw mais xam naa aussi même du ma koy def it du ko waaw dinaa ko jéem a moderniser. dinaa ko jéem a def pour aussi mu gën a mu gën ma nuru. parce que musique aussi day laaj li ngay def lu ne nga yëpp ko mënoo def yenn xeetu musique yi parce que juste public bi dala ko imposé wala wala wala wala sa carrière dafa toll foo xam ne foog nga def loolu non euh, dinaa ko chaque fois jéem a def pour mu pour mu nekk man pour mu ressembler ma quoi donc euh, Dame Sène moom beneen dimension la c'est sûr que inspiré na ma trop parce que temps yu ma passé ak moom studio ci morceau ci morceau bi jox na ma yeneen idée moo tax euh, featuring moom yenn saa yi day baax ay artistes di ko di ko def parce que daf lay mën a jàngal lu bari quoi. yow da am benn style bu particulier style boo xam ne nit ñi dañu la ci naw saa à dire sax yaa ngi def benn musique boo xam ne xëy na dafa génn frontière mais sénégalais yi fexe nga ba dugal ko ci seen xel fexe nga ba ñu bëgg musique boobu noonu donc pour la première fois ñeneen ñoo fi nekkoon mais ci ay genre ay ngoros ak yeneen style musique lañ fi doon teg mais yow da ngay ñëw créer benn style bu bees nit ñi bëgg ko. tey euh, est-ce que yaa ngi soor que ni donc euh, mbalax bi nga xamante yaa ngi koy def ak actuellement tey fi musique sénégalaise tollu mbalax nit ñi woyatooñu paaye dañ ci am beneen arrière pensée ne booy daal ay wax yu vulgaire ah dugal bil bagage yi ne bagage yi dugg genre yu demee classe ma mais tey est-ce que yaa ngi sóoraale que ni euh, soo duggee ci boobu noonu di nga perte benn crédibilité benn perte benn fan yi nga xamante ne amoon nañ ko et puis nawloo woon nañ la parce que mag yi dañ naan ak xale yi pourtant li ñuy neex na mais aussi tamit ay messages yu am solo. lañ ci jàllale. ba xoolal rek daam seen waaw doo xoolee paroles yi musique bi nu mu tëddee c'est pas du mbalax. mais dugal na ci ay instruments traditionnels on a mis devant valoriser nañ bu baax percussion yi tu vois man aussi ci wolof la gën a woy Dame Sane aussi ci wolof la gën a woy donc du ko euh, sol nañ ci ay yëre wolof yoo xamante ne Sénégal la dugg nañ wane ay baobab tu vois wane lépp lu ñu fi am culturellement donc je pense que ñun en tant que artiste man dumay def musique wala may def projet album man damay xool nan laay mën a contribuer ci valoriser suñu culture ci valoriser ñun duñu moom donc doon na gën a yomb moo way album yëpp ci en ci anglais wala ci français mais ak musique bi lu ma moderne moderne ak musique bi lu ma traditionnel traditionnel damay damay damay nekk ci ci ay valeur quoi tu vois ce euh, waaw mais yaakaar naa même sax du fekkoon tey dinaa jéem a def comme j'ai dit benn morceau bu xaw a laal tuuti mbalaxee tout ça man damay damay toog samay principe muy musique nekkul rek neex neex baat vraiment da nga koy def parce que da nga ay xale yu la bëgg fam ay mag yu la bëgg ngay war góorgóorlu pour day way vraiment ngay bind loo xamante nit ku ko dégloo da koy da koy amal njëriñ da ci da ciy jàng dara parce que on est des ambassadeurs il faut ñu nekk ay exemple te wax dëgg yàlla nag euh, c'est vrai musique fi ñu toll nii Sénégal waaw xaw na xaw na xaw na doy waar dafa dellu dafa dellu gannaaw bu baax alors que technologie bi am na fii gën a accessible mais on se rend compte que nit ñi léegi soxlaatuñu sax nekk di bind wala di gëstu wala def ay recherche da ngay dem studio rek xool wax ji fu mu gën a fu mu gën a. fu mu gën a xumbee fu mu gën a xumbee rek nga. teg ko fa rek nga teg ko fa. après public bi aussi topp la. ok ku nekk ak choix man def naa choix wu def musique boo xamante ne il faut ma jël temps di ko liggéey di ko mûrir. ba beneen acte aussi bu def choix def musique musique musique pour ñëpp. musique pour ambiance. aussi choix am la man dama koy respecté. ok da ngay jékki-jékki rek. du dégg la donc kay wax waxu solo carrière solo et puis lan mooy motiver bi loolu c'est-à-dire pourquoi nga am motivation ne damay toog def sama benn carrière solo xam nga liggéey ci toog après passer à côté benn quelque temps rek ak groupe Takay Fa bi non en fait même même nii damay dem tournée damay yóbbaale sama frère lay àndal ah. donc c'est juste que projet la boo xamante ne mm, moom laa sentir parce que xam nga artiste bu nekk dafa am dafa am ay orientation musicale yi nga am man mën na am j'ai toujours été inspiré par le reggae wala rock donc du def sama projet solo damay mën a exprimer li nga xamante ni moom moom moom laay yëg mais du fekkee dangay ngay job ci benn projet boo xamante ni y a 4 5 6 arrangeurs 7 arrangeurs donc à partir de musique bi day authentique mais day nekk benn affaire boo xamante ni xalaat yu bëri ñooy regroupé pour joxe pour joxe benn affaire te loolu aussi dafa rafet te loolu aussi moom mos a nekk force Takeifa mais ci projet bi nga xam ne sama projet la ba léegi maa ngi liggéey ak ay professionnels ay compositeurs tu vois yenn saa aussi j'appelle mes frères ku ci mel ni Cheikh Iba gars la ngeen xalaat ci lii du ñu yokkee lii lii est-ce que lii est-ce que parole yi fii est-ce que arrangement bi nii est-ce que Cheikh jël ma fii guitare loo sentir non nañ ci def sax tu vois donc du coup euh, échange boobu noonu moom day mës di am ci bépp projet bu may def. Mm. Euh, album bi mën nañ ko xaarandi d'ici combien de temps. ba d' abord pense que damay def ay single génne single ba pare après génne benn EP bàyyi temps bi dem tuuti après ma dooroon nag euh, génne CD bi quoi. def CD bi ouais. def nga single bi def nga clip bi mu ngi jàll. ok donc album bi combien de titres la quoi. waaw mën na dem ba douze titres mën na dem ba douze titres EP bi du ma koy génne mën a nekk juste cinq à six titres parce que EP rek c'est pour présenter se présenter après préparer aussi ay tournées tout ça. donc euh, ba mais c'est sûr que na ay surprise macha allah yu bëri ci biir affaire boobu parce que parce que projet la quoi <laughs> xam nga. ok mais album bu douze titres et puis e bi nekk benn cinq quatre titres loolu bëri na. non mais dafa xoolee euh, ci EP bi morceau yi na ci ëpp e bi après day newaat ci ah, biir. day répété waat ci album bi c'est juste ay extraits yooyu jël fii présenté ko fële après dugalaat ko ci album bi. EP e bi euh, doo koy dugalaat ci album bi mën nga ko changé morceau bu comme morceau Dame Sène bi après mën nga ko def acoustique mu nekk benn morceau guitare ak voix kese te loolu day rafet imagine loolu xam nga daam fu mu nekk ak nga ñëw def ko acoustique donc donc après recherche boobu nag ci biir ci biir projet bi la loolu man la loolu aussi ñeneen ñi may liggéeyal la musiciens yi la. ku ci nekk moo naan waaw bi bokk na ci ëpp bi mais du ko defee woon nii du ko defee woon ñu dindi lii ñu yokk ci lii après liggéey boobu mooy moo moo ci toll quoi. Zak yow am nga sens partage ak ay artistes yu mag ci àdduna bi donc tey su may wax ci Sénégal ay Baaba Maal yu Youssou Ndour xam nga des grands artistes yooyu noonu tey ci album bi est-ce que mën nañ ci xaar xam nga ku ci mel ni Baaba Maal gars yooyu nga xam ne. waaw man man yooyu man. man dañ may inspiré te dama am benn respect bu mag ci ci ñoom benn respect bu bu extraordinaire parce que musique comme àdduna balaa ngay xam-xam di bëgg laa rey ah donc euh, doo demee nag léegi ba am benn notoriété bi am benn tour bi mm-hmm. mën a si nga gën a respecté sax artistes yooyu nga xamante ne macha allah ils ont plus de cinquante ans quarante ans de carrière donc question bi ngay posé mooy ñi naka nañu def pendant tout ce temps la mm-hmm. ñu ñu ñu téye flambeau bi nii quoi. donc euh, ñun amuñu amuñu ñun amuñu devoir yàq lool. ñun amuñu devoir yàq lool noonu donc bien sur ay Youssou Ndour xam ay Thione Seck xam nga ay Ismaël Lo ñooñu ay rêve la pour man ma bokk ak ñoom plateau parce que parce que Baaba Maal Baaba Maal c'est man personnellement mooy sama idole quoi. donc ñooñu chaque fois ay rêve la pour man mu bokk ak ñoom ay ay ay featuring ay morceaux donc mën nañ ci xaar Baba Maal mën nañ ci xaar Youssou Ndour mun nañ ci xaar keneen ak keneen ak keneen Papa Ndiaye Coppee comme Dame seen ah, ah. ok ah. Abi Ndour mën nañ ci xaar euh, Adiouza xam nga donc ubbeeku na mën nañ ci xaar si ay rappeurs yu mel ni ay Simon ay Dip Akhlou Brick donc mun nañ ci xaar ñëpp quoi mën nañ ci xaar ñëpp damay damay fil benn affaire rek wala invité la Viviane xam donc euh, donc ñëpp ubbeeku nañ pour bokk ci. cest yow da nga teel a génne sa bopp ci loo bi nga xam ne dañ naan noo kii hip-hopeur la kii noo fake la wala genre yooyu sa départ danga ñëw tag ne man wut musique laay def lu ma sentir rek. après moom lay def lu ma yëg quoi. mais tey dafa am lu bees loo xamante ne dañ ko commencé gis euh, te takkay fa ku wax takkay fa wax Jacques parce que histoire takkay fa mu ngi commencé ci Jacques tey dañu gis euh, sa sœur di jouer ak ak Carlou D. lan ma ci sa xalaat loolu. non man sama xalaat si ñaar la ah sama sama sœur euh, professionnelle la euh, mag la et elle responsable te li muy def aussi quoi qu'on xam na ko mën na ko bu baax a baax donc euh, man dama valider loolu am na liberté tey liggéey ak ku mu bëgg liggéeyal parce que projet personnel am la donc pour pour lu concerne sama sister côté loolu rek laa ci mën a wax ah donc pour lu concerne nag ki nga wax léegi bëgguma jaar ci turam mhm. waaw kooku moom kooku moom mën naa ne ci yooyu lay dox quoi. ok dañu am aussi tamit ay échos yu ñu ci dégg tey ñu am sens taxaw yow foog nga leeralal ñëw. parce que dañ fi ñëw dañ fi ñëw échos yu ñu ci dégg mooy <laughs> ça yaa ngi ree échos yu ñu dégg mooy euh, femme bi euh, donc. Mami Keita Mami Keita Mami Keita Mama Keita xam ngeen ko mooy voilà sœur Jacques la ci groupe Takay fa la bokk. kenn dootu ko présenté mooy. waa mooy bassiste bi voilà. Ah, mooy euh, bëri feeling mooy <laughs> <laughs> moom dafa quitté. dañu am ay écho yu ñu dekk ni moom nekkatul ci groupe Takay Fa quoi dafa dem génn dem donc ànd ak Carlou di di liggéey ak moom. lañ ngay tontu ci loolu. moom yaakaar naa mi ngi liggéey ak artistes yu mi ngi ak projet am aussi ah mi ngi ak projet personnel muy Kër Albinos muy donc euh, comme j'ai dit rek moom dafa dafa lancé projet moom personnel pour def moom li mu yëg def peut-être ay album peut-être aussi def ay voyage euh, peut-être jox plus de temps aussi pour liggéey ci association parce que loolu loolu la wax ci presse bi ah. donc yenn saa yi aussi xam nga presse ñoom ñoo koy jël relier ko yóbbu ko yóbbu ko fu mu àggulee mais tey aussi am na liberté liggéey ak artiste bu mu sentir. c'est quoi problème entre Jacques et Carlodi <laughs> bah je pense que booy boobu dama koy déranger c'est sûr parce que am nañ ay jaar-jaar depuis temps câble donc euh, c'est domage nag quoi am mu mën a rabaisser boppam ba fii. Euh, lu mu yàgg bëgg la moom moom ci xam xamante nañu def de loin mais aussi ay jamono mën naa ne dox naa lool pour que relation bi naay sama diggante ak moom mais je me suis rendu compte que tout le temps que moom dafa am ci beneen monde bu mu nekk quoi te te Baye Fall moom doo koy woote da ngay da ngay am yar am teggin mën a suufeel sa bopp xam nga waaw mën a mën a mën a yéene ñëpp jàmm ak salaam ci vois mm-hmm. mais dama xool ba xool rek gis ne moom moom doxul ci loolu quoi moom vraiment yëfu comme ni nga waxee yëfu feeg dëgg lay def. waaw donc en général dañuy gis donc concurrence du ñàkk ci marché public bi mais tamit ci marché bi rek lay yem quoi du ñëw ba ci biir xam ay réglement intérieur ak genre yooyu noonu ah. euh, dañu jàpp ne ñun ci li ñu dégg mooy que ni dafa dafa dafa dafa ñëw tas groupe bi récupérer <laughs> waaw voilà c'est-à-dire la ngay tontu ci loolu quoi dafa ñëw récupérer yàgg na bëgg ci dox loolu et puis bi et non non non loolu mënul mënul am parce que parce que lu ñu boole ay frais ak sœurs ëpp na ëpp na loolu yaa ngi koy may bës sax quoi <laughs> moom mu day am pouvoir boobu. waaw ah <laughs> loolu non non loolu mënul nekk loolu mënul nekk parce que comme j'ai dit ku dafa jot rek ku ci nekk euh, dem say projet bopp te ñu ñëpp ku respecté nañ te ay frères ak sœurs nañu. donc en tant que ay frères yu bokk ndey baay lu ñu bokk ëpp na benn waa ju jóge fa lay ñëw am pouvoir man damay non non bul ko may bës ba mu noonu moom tuuti na tuuti na lool ci ci loolu léegi nag moom dafa am dafa am peut-être lu ko doon déranger rek mooy man compositeur arrangeur la man aussi maay leaderu takk Takeifa ah donc euh, c'est sûr que musicalement man ak moom bokkuñu lu ñuy def bokkuñu ay cible te it avant man ma ñëw fekkoon naa ko fi mu am benn public bi donc man du mu ñëw benn originalité benn démarche benn image bu bees bu may bu may incarné xam nga am benn discipline bu may teg xam nga donc loolu c'est sûr et day day day day déranger day donc du coup mais mënoon na gën a rafet ndax fii kenn mënul lekk wërsëgu kenn affaire bi yaatu na ko ci nekk mën nga am fa évoluer di am li ngay am te doo déranger kenn donc je pense que nag yooyu noonu dafa nekk ay point points yu ko mën déranger mais na dalal xelam man bokkuñu ci level bu ñuy daw <laughs> bokkuñu fi ñu toog. ça da nga sama question quoi dañu bëgg a xam exactement cest à lan moo xew ci problème bi cest à sa sa lan mooy sa dig problème ak Carlou D cest à lan la def li nga xamante ne nii geste bu bu bu naaysul la xam no non man je sais que a quelque chose ça may trop ma ci wax parce que parce que kenn mosuma dégg ci ay ay diw mooy def nii xam nga parce que nekkuñ ci ay musique buzz pour mën a am dara xam nga donc nekkuñ aussi ci man daal personnellement nekkuma ci loolu mais comme j'ai dit rek jot naa dox plusieurs fois def na je pense que daje nañu benn benn bés ci studio Malal Malal Malal Tall Malal Tall yàgg na aussi ndax am na lu ma doxalee noo xamante ne après man sax waxtaan naag Malal Malal ñëw na Ousmane wax ma te dañ fa daje woon ci biir studio bi rek ah. daje nañ aussi euh, RTS RTS inauguration bi. Mm-hmm. man ñëw naa ba ci moom am ni ma ni ma ma waxeek moom. pour euh, jéem a gis naay sal diggante bi parce que boo amee invité ma man bu suma invité la jox ma sa numéro am na nu mu dawalee. Mm-hmm. donc jarul ñuy dugg ci détails yi quoi te genre yu mel noonu ak grand théâtre yu muy organisé bëgg invité système bi du invité diw dafa ay mbir yoo xamante ne mbiru. dafay diviser quoi. waaw waaw waaw ci moom objectif yooyu lay dox. waaw mais mais moom la moom la parce que yenn saa yi nit ki da ngay yaakaar da ngay def sax pour yàq fekk ne da ngay. defar ko fekk da ngay def pour defar. ok mais invitation yu mu doon def comme récupérer nit xam nga chaque groupe dafay am ay règlement intérieur. et puis dafa njiit kër goo gis am na am na borom kër am na njiit tey takay fa comme ni nga ko waxee sànq yow yaay kilifa bi yow yaay njiitu takay fa donc man je pense que nit bu waree jige fële ci jaar ci suuf war mën a jaar donc loolu moo déranger takay fa et puis voilà loolu moo déranger sax non loolu loolu mënu loolu mënu loolu moom peut-être da ko def rek parce que stratégie stratégie yoom la moom tu vois mais mais mais déranger wu takay fa ñun comme je dis ñoo bokk ñoo bokk ndey ak baay def nañu plus de macha allah dix ans onze ans quinze ans tournée donc on se connaît très bien ku ci nekk xam na fi nga mënee li nga am li nga mënul donc lépp lu ñu am it dañ koy c'est pour la famille. donc euh, nekkuñu ay xale yuy ànd di fo après di dóorante non non non lépp dafa nice fii mais c'est juste que yaa ma yaa ma yaa ma woo ci ci question boobu. parce que parce que depuis un bon bout de temps at journaliste yi ma ciy bëgg dañu ma ci bëgg poser mais dama leen non non bëgguma ci wax mais c'est juste qu'à un moment donné il faut nga éclaircir waaw benn affaire il faut nga éclaircir wax réalité yi quoi nit ñi xam aussi ku ci nekk mën a nekk place am waaw système bi Takei Fa dans une semaine duñu neexee mën nañu taxawaat taxawal suñu projet donc foofu dara ñaaw fa mënulu mënul nekk ci àdduna amul dara lu ko jar xam nga donc euh, mais moom waa ji Carlou D mag vraiment bokkuñ ko bokkuñ ñu ñu xalaatee bokkuñ ñu ñu yaree bokkuñu ay valeur xam nga li muy def na ko def xam nga après nag l'avenir nous dira waaw. Jacques auteur et compositeur du groupe Takaifa tey euh, tey soo doon am message booy lancé ci musique Sénégal cest à lan mooy tox ce qui ne va pas ci Sénégal ci côté musical bi. musique Sénégal i grand dama laajee lool day mel ni damay bañ a damay bañ a bëri xam-xam lool donc euh, musique Sénégal yaakaar naa. am na lu ci baax na lu ci baaxul te loolu àdduna lépp lépp loolu la day am lu lu luñ luñ la mën a sikkee am aussi li nga xamante ne ni vraiment dañ lay tàccu waaw musique Sénégal nag du ñu mënoon ñun ñëpp en tant que ay musiciens ñuy gën di góorgóorlu pour suñu musique gën di mën di génn frontières yi dina baax parce que dañuy représenter Sénégal représenter culture sénégalaise Euh, ñi nga xam te ne ñoom ñoo ñoom ñooy encadré ñoom ñoo ñoom ñooy nekk ci droit d'auteur yi ak ministère yeeg yooyu ñoom aussi war nañu gën a xaw a di flexible pour que aussi art artistes yi euh, gën di am ay ay subvention ay accompagnement pas ay aide waaye pas ay aide mais ay accompagnement ay subvention pour seen ay projet euh, musique urbaine muy hip hop lép ñu jëm ci urbaine danse et tout ça musique classe ñi gars yi def ay percussion yooyu théâtre ñuy def expo ñuy def peintre aussi je pense que war nañ gën a mën a yaatal art parce que art bi aussi nekkul rek musique donc je pense que man loolu laa mën a loolu laa mën a wax mais awma ay conseil bu spécial mm. bu may mën a bu may mën a joxe quoi parce que man déjà yaakaar naa man maa gën a soxla ñu may jox ay conseils <laughs> donc du coup conseil non ça li ma am nga sens voyager partager dem def tour presque Europe dugg États-Unis Afrique ak Sénégal sous région bi ak yooyu yëpp mais tey euh, su ma la laajtee loolu c'est parce que war nga ci mën a laaj tey Jacques et fa dañu am benn sens dañu génn nit ñi cest à dañu dañu def benn carrière bu extraordinaire boo xam ne nit ñi foogee wuñ ko woon quoi parfois sax nit day nekk feneen naan waa ñii est-ce que ay sénégalais lañ yow sénégalais bi parfois da ngay toog na waa mais bi fu ñu ko jëlee ñi fan la ñuy rootee et pourtant Jacques nee na fii la nekk tukkiwul musul def extérieur. musuma dëkk bitim réew man musuma dëkk bitim réew takkee faa musuñu dëkk bitim réew. ñu tukkee maximum un mois la une semaine xam nga deux mois ñu ñibbi si waat Sénégal man parcelle laa dëkkoon unité 11 donc après Cambérène 2 sama nijaay sama tonton Fall laa nekkaloon après. def nañu région yi Fatick Kaolack xam def nañu Saint-Louis fu nekk dëkk nañ fa Sénégal donc ñun ci région yi sax nañu gën a dëkk sax ka ka que que que Dakar donc du coup loolu mooy nekkoon suñu suñu suñu suñu chance que aussi nit ñi comme doo amanteel te lépp dakaar lay xewee doo am fii ñooy màggandool nekk di sa Vanvo wala lii sa lii tu vois donc ñun ci région yi dañu nekkoon te fu nekk dañu fa doon dëkk deux ans xam nga donc du coup doo am ay doo am trop ay ay contact ay nit ñoo xam ne da ngay mën a màgg ak ñoom partager ak ñoom ay ay moment yu bëri tu vois donc loolu mooy yaakaar naa suñu malchance donc moo tax nit ñi mm-hmm. duñ ñu gisee ñuy def benn musique bu mais mës suñu dëkk bitim réew. ok mm. ok bi fan la ci ci parents yi la est-ce que exact ñu amoon ay parents yu def musique style boobu. non non suñ parent yi déjà bëgguñu woon sax ñu def musique ci mel ni sama yaay moom bëggul woon sax ñu def musique donc no euh, no mais nag am nañ chance ñu encadré ñu bu ñu xamee ne lii nañ bëgg ñu am nañ chance ñu encadré ñu vraiment. Euh, jox ñu possibilité ñu def lu ñu bëgg a def quoi. Hmm. donc seen fans yi dañuy jooy duñ leen gis tout le temps duñ leen dégg tout le temps tout le temps yéen tëju yéeg voyage yi bu leen gisee ci télévision bi la xabaar télévision bi ci seen i concert yi nga dégg à Jacques ñu ngi joué fii ñu ngi dem nañ bitim réew ñëw cest à tëju boobu lan moo ko waral. donc du tëju du tëju parce que def nañ fi ay concerts yu bëri ay grand théâtre grand théâtre fii ñun ñoo ko njëkk a def def nañu trois grand théâtre mu fees dell gars yi ñëw ñu bëggee donc c'est juste ñaari musique yi nga xam te nii ñoom rek ngay mën a def pour mën a am masse bi ñu waxante dëgg ah soit dangay def mbalax pure et dure wala nga nekk ci hip hop bi pure et dure parce que am na émission yoo xam te ne mbalax rek nañuy promouvoir ah, te ñoom ci loolu kese nañu mën a nañu mën a aussi def seen business am na animateur ak public boo xamante ne ak réseau boo xamante ne musique urbaine hip hop bi rek nañu mën nañu promouvoir donc doo fekkee doo fekkee da ngay def beneen xeetu musique doo am trop nag ay ay possibilités ay portes ay fenêtres yoo xamante ne dañ la si dañ la si mën a donc ñun suñu public dañ koy mën am juste ci réseaux sociaux yi tu vois wala ci concert yi ngay def foofu ngay amee yenn contact sa sa public yi donc ñooñu day grand day grand théâtre ci internet bi ci Facebook nañu xamee ne au fait grand théâtre du dëgg donc je pense que loolu loolu la kese mais à chaque fois que duñ nekk fi Sénégal dañuy jouer pratiquement tous pratiquement dañuy bañ rek pour léegi éviter loolu na gars yi dem abonné ci ci samay Facebook Jacques Takay Fa point com wala Facebook euh, Jacques Takay Fa yi donc du ko defee fépp fu ma joué fii Dakar da nga koy yëg mais pratiquement mois bu nekk dañuy joué benn ñaari yoon. Hmm. ok dafa am lu bees loo bëgg a génne à l'exclusivité nga waxal ñu ko internet yi seetaan ñu xam ko Jacques dafay créer benn. mën naa ko waxee émission ah. ak ay fansam ah, ak <laughs> ak ay fansam yoo xamante ni da leen koy déjee à chaque chaque semaine mu def benn affaire xam nga dugal ko ci réseaux sociaux yi ak yooyu gars yi di ko am. xam nga donc lu tax idée boobu fan la jógee. waaw ba dama wax nag tur bi parce que gars yi. ah non gars yi dañuy sàcc de non problème droit d'auteur demagul BSDA. Ah? non non non non oh, c'est c'est benn benn concept la boo xamante ne c'est pour ma c'est pour ma rapprocher ak sama public. mais aussi comme question yi nga posé nii yëpp pour aussi mu mën a leer ci nopp Sénégalais yi nekku leen fi woon yéen a ngi woon ça fait deux mois dégguñu leen pourquoi tu vois donc question yooyu yëpp ma mën a di ko di ko di ko di ko di ko tontonteel di ko waxanteel di informer ñi nga xamante ni vraiment intéressé intéressé na leen euh, lu may def fu ma toll xam nga ci lan laa nekk ci lan laa jëm c'est très important aussi tey réseaux sociaux yi peut-être mun naa ne parce que lépp foofu lay xewee donc c' très normal que ñu am ma am benn porte boo xamante ne vraiment ci laay mën a jaar pour mën a pour mën a di wax ak euh, sama fans yi quoi. ok ok euh, tey ñu jeexantalee ci album bi. donc album bi mu ngi waaj a ñëw douze titres la donc mais EP mooy waaj a génn quatre <laughs> titres donc déjà single bi disponible na ak Dame Sène donc public bi nga xamante ne ñoom nga amoon c'est-à-dire public bu Takayfa donc public boobu est-ce que tamit euh, am nga yaakaar que ni même public boobu aussi tamit moom mooy ñëwaat ci Jacques. wala amul différence. amul benn différence c'est c'est le même public c'est les mêmes valeurs mm-hmm. même public la. amul amul amul amul au contraire parce que tey euh, dama ose aventurier wu. Mm-hmm. ci beneen style musique boo xamante ne moom moo gën a ubbeeku sax. te moo gën a aussi accessible. Mm-hmm. ci sénégalais yi d'abord ah. non du non mën naa ne du malax ah, mais aussi inspiré wu naa ci lu bari wax dëgg yàlla mais munuma tey ne mbalax la mënu tey parce que da nga bëgg ma ne la non léegi mbalax laay def woot musique <laughs> woot musique la rek comme yi gis nañ mag daam seen bi aussi peut-être aussi stratégie la ah, mën na am ne euh, euh, beneen single bi mm-hmm. beneen artiste laay invité boo xamante ne peut-être euh, beneen xeetu musique lay def. ah mën a nekk mën a nekk peut-être benn benn américain wala benn colombien wala benn nigérien wala benn malien tu vois donc euh, donc musique bi amul limite. te je préfère que affaire yi nekk ay surprise que nga ñëw rek teg lépp ci table bi. Oh. man li ma ci li ma ci gis en tant que euh, ma xool xel sama xalaat mooy que nii Euh, en tout cas am na am na marketing bi dox na. Mhm. parce que le fet sa nga jël daam de daam seen indi ko muy mbalaxmaan. Mhm. cest à dafay joxaat beneen image. Mhm. par rapport ak public bi nga xamante ne ñoo daan fil. takay fa ak li nga doon def dañ naan ah mais waa ji waxoon na fi world music lay def est-ce que ci mbalax est-ce que du genre. am na benn clue benn benn couleur boo xam ne aussi tamit. ñu ngi koy commencé mais world music ba léegi musique bi ma def ak daam seen ci bokk. world music mooy musique du monde. mooy musique mooy n'importe quelle musique mbalax sax world musique la parce que musique la boo xamante ne ci àdduna bi la bokk te mbalax aussi musique bu baax la ah. parce que ay xalam ñoom mbalax nañuy def Youssou mbalax bu muy def pure dieu bi mais da koy yóbbu Bercy da koy yóbbu ci international bi xam nga ay ay Ousmaïla Lo ay Baaba Maal ñuy def aussi du leneen lu dul inspiré wu ci musique mbalax bi après nag yokk yóbbu ko yóbbu ko ci beneen dimension ay xalam xalam deux ay groupe Missal ñoom ñëpp musique bi moo ñu bercé donc du ko euh, mbalax ba léegi mi ngi ci benn cadre boo xamante ne bu international boo xam ne dañ ko gënee mooñ waaw dinañ am benn affaire bu bu doy waar parce que musique la bu musique la bu doy waar boo xam ne ay contretemps yu yu kéemaane ci nekk donc man plus may gëstu sax ci musique boobu waaw dama ne waaw mais li garaaw na parce que ay ay contretemps yu yu ci nekk gars yi seen percussion si fu ñu dugg mais mais ay ambiance yu neex moo ci moo ci nekk donc di ko man ku ku sob laa ku curieux laa ci côté boobu noonu et je me rends de plus en plus que am na solo ma des sama style musical mais aussi bien sûr ma jël mbalax bi boole ko ci jël musigu euh, musigu séeréer boole ko boole ko ci jël xalam fuit quelque chose de tradition boo xam ne dafay tradition ah, day am solo day doo ko utiliser rek pour def ko ci mu nekk benn affaire booy def pour am couleur bi déedéet da nga koy gëstu pour mu nekk loo xam te ne duy dugg dañuy xam ne ne waaw ça c'est recherché lii am na ay yi nga ci def wala defoo ci effet tu vois y a de choses yoo xamante ne danga nga mën a def tey ci musique bi. lan mooy secret Jacques. ñëw nañ gis la fii livre yi <laughs> dessin yi xam nga lan moo lay inspiré quoi. man man awma secret. sama lu may inspiré mooy mooy sama xarit yu may nekkal. mooy li ñuy def nii mooy musique yu may déglu. mooy expérience yu ndaw yi may am di voyager ay Fatick pour découvrir yeneen affaire mooy sama gars yi ma amante loon yu ma xamante loon ay Louga comme ay Cheikh Baye Fall xam nga yenn saa yi muy jógee fii dem ba Kolda parce que amoon naa fa aussi ay xarit pour rek euh, togantoog ñoom dellu ci beneen dimension bi nga xamante ne daf may mën a permettre ma mën a ma mën a indi lu bees donc ku ku soblaa ci côté boobu ko damay bëgg chaque fois di di échanger ak ay nit damay bëgg chaque fois aussi di bokk ak yeneen artiste xam nga pour pour mën a jël ci ñoom ñu jël ci man man yaakaar naa loolu mooy du fekkee am naa secret. loolu la quoi. mais yombul ah c'est pas évident nga gis koo xam ne ni am na benn succès bi ak fi mu toll voyager partout dans le monde ñëw di delluwaat. xam nga ci ñi nga xam ne ñoo doon foondoo comme li nga tudd léegi dem Tamba gis sa gars yi nga xamante ne yéen nekkoon xale du foondoo ak yooyu yombul ñu gis ko c'est très rare ñu gis ko ci artistes souvent boo xawee nekk benn niveau bi yaa ngi tëju yaa ngi laqatu kenn duñ buñ la gisee ci télé bi xam nga mais Jacques melul noonu donc ñun mën naa ci témoigner dara parce que ku woyof la et yàgg nañu déggante téléphone xamante nañ depuis Kaolack xam nga donc voilà bu yàgg quoi <laughs> franchement donc maa ngi lay remercier di la féliciter encore une di la encourager sa album solo bi sa carrière solo bi nga xam ne yaa ngi koy def man sa c'est que bu dee yow kese la lu nice la parce que lu nice rek ngay teg lu nice li la gën a xam donc na ko artiste na ko gars yi xaara ah, na ko gars xaar saa yi nag man j'aurais aimé nga ne ma date bi saa yi tel la la tel jox ma date kale gars yi mun ko xaar jox ma point de vente yëpp ak yooyu parce que man c'est que pare na dina dinañ dinañ dinañ ah, ci ñëw dinañ ci ñëw ak waa ak waa seen clique parce que parce que man sama liggéey mën naa ne def naa ko pare mais dafa am ñeneen ñi nga xam te ne aussi am nañu am nañ li ñu war a def donc ku ci nekk rek euh, étape par étape la donc euh, moo tax mënuma taxaw ne dans un an la mënuma ne dans une semaine la xam nga donc nañu bàyyi affaire yi dox normal parce que il faut que mu jaar yoon rafet présentable ba nga xamante ni ku ko déglu rek dina ne waaw gain bi liggéey na tu vois loolu mooy objectif bi quoi mais nañu xaar ay surprise bëri day dina am incha allah ci ci affaire bi ci projet bi waaye merci Jacques donc ñëw nañ nga teral ñu et puis xam nga accueillir ñu nice xam nga euh, naan naan fi café kafe ah, gu neex sax kafe gaa ngi nii bàyyi ma wane ko jël nga ko <laughs> merci xam nga lii mooy Sénégal lii mooy teraanga Sénégal li la ñu xam quoi xam nga donc ay xarit la ñu ñoo bokk ndey boo ko bàyyi et puis dara xëñ xañu fi lu ñaaw quoi na lépp mm. que xam nga mm. démb moo tax mm. donc ñu ngi lay xaar mën naa wax ni fans yi dañ ko xaar Jacques la xam ngeen ko donc ci lu nice lay def album yi da ngeen ko xaar mais mais dina dina am tournée yëpp quoi album bi ah bay dina surtout fii national dina am ay tournée ci région yi gën a sori ci yi gën a sori kon fans yi mën nañ la xaar xarit ah yi ak yooyu yëpp xaar affaire bi fépp macha allah Sénégal fépp. après nag ñu door a wax feneen mais pour l' instant comme ñu ngi fii. nañu wax focus fii après nag fee yi ñëw aussi réseaux sociaux yi ñu ngi fi parce que gars yi nañ dem abonné ak yooyu noonu donc nañ xam <laughs> fépp fu mu war a ñëw rek. Ah, non yi en ah, ci Facebook yëpp j'ai deux Facebook. donc euh, mën nañ dem ngeen ngeen like bu ko defee après di ngeen mën a di jot information yëpp quoi. parce que est am na temps pour pour répondre internet yi. waaw ah, say fan yi ci damay tontu kay damay problème mu artiste yëpp naa ko message six mois tontu. damay tontu nag ah mais xam nga yenn saa yi nag yenn saa yi nga tontu tontu ñaar xam nga ne. xaaral xaaral xaaral liggéey après ñëwaat ci. mais après nga fàttali mais mais mais franchement damay. damay léegi moom j'ai pris la décision jël temps boobu noonu parce que xam nga mënoo woon mënoo mënoo boole lépp di composer di arranger donc ci studio yi yaa ngi bind fii yaa ngi ah, xam donc léegi macha allah am naa benn staff boo xamante ne ku ci nekk mu ngi def liggéeyam comme il faut donc man gën naa am aussi temps pour mën a mm-hmm. tontu fans yi ci ci euh, ci réseaux sociaux yi mais aussi créer ay concepts yi nga xam xamante ni dina mu gën a mën a jokkalante ak ñoom. merci maa ngi lay remercier. donc ça fait un plaisir maa ngi lay remercier sa mot sa sa mot la fin. ba yàlla na yàlla def ngeen dem ba am nekk ay télé boo xam ne benn télé mais ay télé. ay ay télé <laughs> loolu laa ni ñaanal li ngeen bëgg yëpp ngeen ko xam yàlla defal leen ko. merci merci merci à